ba 22 heures yow Momo, il était à la direction générale des élections mu il y a un problème et cetera passe ma Déthié il me passe Déthié ma ne ko un homme nga une femme tu déposes la liste parce que tamit nag coalition bi diw moomu Dieu ou Dieu moomu ko fais ça ñu avancer il me dit écoute nañu xaar tuuti comme dañoo ànd ànd bu rafet ba fii nañu xool nu ñuy def ak suñu euh, nos amis de taxaw pour bañ mu mel ni dañoo wañ seen loxo forcer leen def affaire bi. ma ne ko léegi si suñu toogee ba vingt ba vingt trois heures trente minutes waa taxaw décide qu'est-ce qu'on fait mu ne boobaa je prends mes responsabilités je fais ce que j'ai à faire je dépose ma ne ko d'accord. ñoo ko donc ba ci jour bi ñu waroon déposer liste Yewwi Askan Wi pour élection législative yi lo xamni dafa laaj liggéey ci sa teyu bakkan xel mu dal ak série bi ci war Khalifa Sall ak Barthélémy Dias ñoo ngi jaxase carte yi loolu moo tax jumte yi bari lool ci liste Yewwi Askan Wi ba talu ñu def vérification caytu gi ci war lu ko mooy minuit dafay jot ñu tej dépôt yi te lii Khalifa Sall ak Barthélémy Dias ñoo ko tàyyi liy firnde ni loolee baara yuroo la seen diggante ak nguuru Macky Sall Khalifa Sall ak Barthélémy Dias ay tóob lañu woon ay élément nguur gi lañu woon biir Yewwi Askan Wi mooy yéen ñëpp xam ngeen di jamono yooyu liste nationale bi Ousmane Sonko jiite ak bu Dakar bi Barthélémy Dias ne woon tëdd liste ñaar yëpp amoon ay problème ku ci nekk war def ay rectification waaye fan la mujj dañoo éliminer bu Ousmane Sonko ne ko yow doo bokk bàyyi bu Barthélemy Dias mu jàll xalaat leen est-ce que Macky Sall baaxee na baax bu doy ni gis adversaire politique am bu mën a éliminer rawatina département bu Dakar nga xam ne ñoo ko doon xëccoo seen député bari woon ay enjeu lool Macky Sall bàyyi mu jàll parce que ndekki mosuñoo réeroo ñoo ni nen la au dileeg complot yi néew ni ci dialogue bi dong la tàmbalee mais ca jamonoy élection législative bi la woon waa sax lu ko jiitu période bi nguur gi bëggee woon xañ Ousmane ko doon député ngir xañ ko malaanu kiiraay yi pour mën a yombal à terme tey même personne yi gannaaw ba seeni ñooñ doone ay député ci jàppale ak benn jëmm ñoo bëgg a tey voté à l'Assemblée nationale benn loi pour jëmm joojee ki Sall mën koo rey politiquement parce que ñoom jàpp nañ ni seen doonu président. voilà. gis nga bi ma dégloo lii j'ai maintenant compris pourquoi ndeysaan Abdou Karim Gueye gars yi teel koo faagaagal dugal ko prison xam nga Karim Gueye dafa mel ni sakku buy déglu boroomam muy wax toujours mu recopier li muy wax yépp comprendre ko te bis bu ko waxee dëkk bi làkk borom ji jël ko teg ko ci biir néeg néeg bu yàgg dugal ko fu sori comme ça bu mu continuer yuuxu gan bu ñu ñëwee ci kër gi bu mu répété complot bi nga xam ne moom la doon wax ak sekku bi di ko dégg Abdou Karim Gueye lii la doon wax ndeysaan chaque jour man dama dan xuloo ak mom nak ba mu tàng jër grand ñi ay comploteur lañu ay dealer lañu c'est des anciens politiciens grand ñi ay comploteur lañu Sonko waru leen jege Sonko warul ànd ak ñii Sonko waru leen laal ay comploteur lañu ay dealer lañu ma ko Abdou Karim dans un monde normal tant que amuloo preuve do réagir Abdou Karim Gueye il a toujours été constant dans ses propos ci côté bi nit nak loko ko waxal ci adina waxal ko dëkk Abdou Karim Gueye dafa wax ci li ba président Sonko ci bopam daf ko mere à un moment donné man xamna ci dara ndax président Sonko bëggul nit kuy insister ci ben affaire indi wulo firnde mom c'est une personne ouverte nit la waye day bëgg lepp loy wax rek nga indil ko firnde preuve bëggul du nit kuy comploter c'est pas quelqu'un qui parle derrière et garder les paroles ne di waxoon na ma déedéet moom lépp loo koy wax bu yeboon na doon lu leer lu dégg bu dul loolu da koy répété àdduna bi yëpp dégg ko parce que bëggul complot il n'aime pas les complots Karim Gueye yàgg wax lii bay dal ci kaw Sonko lii Abdou Karim Gueye yàgg na ko wax bay dal ci kaw Ousmane Sonko di dal ci kawam ci plateau yi ñun ñëpp ñuy dal ci kawam ñun ñëpp ñu dal ci kaw Abdou Karim Gueye je ne dis pas Karim Gueye lépp lu mu mën a wax rek lépp lu mu mës a wax rek ci àddina he right waaye ci côté bii il était constant et il était véridique lii moo tax Macky Sall jàpp Abdou Karim Gueye tëj ko ci biir prison bi lii rek la du leneen parce que Abdou Karim Gueye bu nekkoon ci biti ba léegi te am tuuti accès ci plateau yi wala youtube am bi day continuer yuuxu lii yuuxu lii yuuxu lii yuuxu naam deal bi dara du ko doon tere am mais deal bi doole bi dina doon wàññeeku lu bari parce que man mii ngeen di wax jiitoo nañ ma lu bari ci deal bi parce que man bëgguma di contrer le président Ousmane Sonko buy jël yenn décision yi parce que ñu ne njiit boo ko jiitalee da koy wóolu te bëgguma Ousmane Sonko wax man ma wax jëmale na le muy wax jëmale nii may wax jëmale na le loolu day fragiliser li nga xam ne moom mooy suñu combat bi nga xam ne moom la ñuy def mais le système que Sonko nous disait aujourd'hui s'est présenté Nous sommes ñu à l'Assemblée nationale waxuñu pour intérêt sénégalais Nous avons ñi fa c'est un intérêt parce qu'un un Abba qui se dit que Khalifa Abba Sall ci ay le bis bu président qui a dina am position ministre am ay privilèges am milliards comme Nicolas a perdu APR di defee léegi te du ci Bassirou sa sàcc Barthélemy Diaz se dit la même chose man nena len leen Barthélemy Diaz dama ko xam Yalla daf ma dimbali xaw ko personnellement c'est pas un ami personnel mais dama xam lu bari ci mom. Yalla daf ma dimbali ci lool. parce que quand j'ai eu la chance à l'écouter j'ai trouvé j'ai j'ai j'ai j'ai su quelque chose gis naa ay mbir yu bari yoo xam ne déglu seede yalla xolal limay wax ak yéen ni sama ben xarit mo dem ci xabru ben doomu aadama bu ma bëgg buguma tuddu tur sama ben xarit limay wax ak yéen nii c'est un de mes amis mu dem visiter xabru ben doomu aadama bu ma bëgg ci sama biir xol duma turbi partager tour bi ak yenn te duma partager photo xarit bi ak yenn waye dina len won rek exemple ndaysan li may wax ak yéen nii ci mbiru senegal sama benn xarit yónnee ma photo bii dafa dem visiter xaburu benn nit bu ma bëgg mu fotowu ci mu yónnee ma ko nii yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana macha allah. mais le président Ousmane Sonko il nous parle du système il se concentre et il nous, il nous explique le système. Et on a compris le système, machallah. Ousmane Sonko comprendre loo nañu système tey bi ma toogee may déglu may déglu may di déglu assemblée nationale di déglu ñoom ba amna am ngëm-ngëm ne ils dinañu jël mi ils ne comprennent pas ils n'ont pas compris la puissance d'un peuple révolté Ils ba légui comprendre ñu lool ñun comprendre nañ ko man comprendre na xam man Amérique la nek. néna len na fi africain bu am ay Barack Hussein Obama Bo xolé change am ci sondage aduna bi pour la pour président Amérique zéro pour cent chance pour mu nekk président ndax moom système bi gëmu ko kenn moo ko gëmoon mooy xale yi ndaw ñi rek ko gëm la population et la population jeune ñoom ñoo gëmoon Barack Obama te ñoom ñoo gëmoon aussi ne ils vont l'élire ñiy tok assemblée nationale ni xam nga dànkaafu nañ leen ñu wax leen li ñu xam yépp ñu dégg ñu ba léegi ils ont continué avec leur farce de je ne sais quoi Ñom gëm nañu ci seen biir xel ba légui né ñom dinañu wañaar loxo sénégalais yi sénégalais par force tek fi kuñu bëgg sénégalais duñ ci man dara loolu lañu gëm ndaysan ay yalla ya karim ils n'ont rien compris ba comprendre ils sont dans des rêves Khalifa Ababakar Sall bu post. poste dem leen Khalifa Sall officiel bu poste bi mu un ak Sonko xale post. gëm Sonko di ko poste xam bon bon bon neuf mille la daan am ay dix mille ay six mille sept mille tey moom Khalifa Babacar Sall bu dugalee photo wala mu dugal dara ci page deux cent personnes ñoo koy aimé deux cent s'il était dans un monde normal loolu sondage la bu dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër Dans les gens là ils n'ont rien compris rien ils n'ont rien compris nous que les sénégalais sont Sonko sont sont wax parce que imaginez regarde comment se fait-il que dëkk bu bu melni Saint-Louis ak importance bi mu am ak Sonko ndeysaan ni mu bare won liguey ak li mu ci temps local yi ni kon Abba Mbaye jël na mairie Saint-Louis ak jël député kon fuuy na ni Barthélémy Diaz médias. ni kon Abba Mbaye tay mi ngi wax n'importe quoi way yalla ko won bopam ndax Ousmane Sonko ñewul ci élection mairie Abba Mbaye a perdu Ousmane Sonko ñew ci élection député yi Abba Mbaye a gagné te xam ngeen ab Mbaye ñun ñaata ay campagne lañ ko defal ñun à distance xam naa ay sœurs yoo xam ne waa Pastef lañu seen xaalis lañu daan yónnee Saint-Louis di mobiliser di massifier di wax Saint-Louisiens yi génn leen ngeen votel ab Mbaye ñun ñu dem ba mu am ñenn ci biir Pastef ñu ñeññ ñuy xuloo ak ñun nañu ab Mbaye traître la yéen ñi nii di ko nangam ñu ne leen déedéet comme dafa bokk yi askan wi rek fexe leen lépp loo leen man ñu voter ko pour yalla dimbali ñu na yewi askan bi Ona rek on a fait tout ce que nous pouvions def nañu lepp lu ñu man gaay ne non duma sa am ñu dem ñu deglu wando ki nga xamne moy suñu frère Gi mari Sagna lu mu leen wax tay ci assemblée bi te muy deug bu nañu dem deglu gi Marius Sagna mbokk yi nuyu naa leen lii wane ne assemblée nationale bi du assemblée nationale askan wi système. bi ñu taxawalee quatorzième législature ba léegi gulet ñu woo session extraordinaire gulet ñu woo procédure d'urgence moonte de jafe-jafe inondation yaa ngi fi étudiant yu nekk université numérique Cheikh Amidou Kane ex-université virtuelle du Sénégal. Tu bac il y a un an. bataille promotion 10 commence à cours. Vous vous rendez compte 18 000 étudiants en bac Nous orientés ex-UVS. commence à cours. 18 000, il y a 3 000 et quelques étudiants qui ont des Mais aujourd'hui, nous avons une machine. Nous avons orienté université université numérique chef Amidou Kan, état de lay jox ordinateur jox le modem jox le jox la ni koy euh, connexion internet jusqu'au moment où on parle c'est un yi am nañ bac état bi imposé une année blanche ndaxte du suñu dom xeyna, na ndaxte du sen dom yeen membre du gouvernement yi qu'une université numérique chef Amidou Kan. Woté wuñu session d'urgence woote wuñu procédure plutôt session extraordinaire que wuñu procédure urgence pour kaawu étudiant Nous ñuy une procédure d'urgence waxuma ne Nous avons ñuy wax me mais commune Nous Mouride kilos bu imposable 14 kilos c'est comme ça qu'on va développer l'agriculture woote wu procédure d'urgence pour lui, woote wu procédure d'urgence pour suñu dom, yiy dee ci géej gi ñuy warante deux cent la trois salles, la salles, la ñuy woote euh, euh, section extraordinaire ci lii waxuma jaru ko de vous lii day vous ne nous ne sommes pas une assemblée du peuple nous sommes une assemblée boo xam le président Macky Sall nous nga xam ne pexe rek moo président Macky Sall mi nga xamné ne njuut rek nous, session d'urgence pour nous, njaaju président Macky Sall pour d'accord les complots pour la liquidation du chef de l'opposition politique au Sénégal Ousmane Sonko deug la que li nga xamné la c'était un pseudo dialogue c'était un simulacre de dialogue Les nak nous ñu fa dem am fa yaakaar duma wax ci ndax té problème bi du problème bi moy Macky Sall mi nga xamné lim fi organiser ay sélection et non ay élection ñun li ñu wax président Macky Sall na organiser ay élection pas ay sélection sélection moy lan may tan ñi di en principe le président Macky Sall de faire ñëw def une excuse publique il se rend compte que li de defoon Karim Wade du il devait faire une autocritique publique il s'est rendu compte que li de defoon Khalifa Ababacar Sall c'est ça la vérité il devait faire des excuses publiques et non du nous faire ci deal de nous ci complot de nous ci ay liquidation nous faire ci plan de xam ne ni mu président Macky Sall Qui dit dit wax président Macky Sall donc motax ñu né motax ñu né fi ma bokk Bok complot président Macky Sall et je félicite le peuple sénégalais d'avoir réalisé le président Macky Sall et on va imposer son code dans les ku ku foog ne tappale yii ku foog ne tappale ak njuñ njaaj yii Ousmane Sonko du bokk yaa ngi nax sa bopp ku ku Ousmane Sonko day bokk ku bëgg dañuy organiser ay élections inclusives bravo au peuple sénégalais qui a réussi à imposer à Macky Sall Macky Sall doo bokk et ce peuple sénégalais va imposer à Macky Sall Sonko da ngay bokk Sonko da ngay bokk Sonko day bokk

il n'avait pas calculé ne Ousmane Sonko dit na le ci seeni jeu et il avait compris le jeu Moi, a mu investir Guy Marius Sagna parce que le lu Ousmane Sonko est wax assemblée nationale ou le lu mu est a wax assemblée nationale Guy Marius Sagna mi le koy wax assemblée nationale Guy Marius Sagna mi ngi koy def ba def Ousmane Sonko xam nañ peut-être moom du pas sax caisse wala du xeex ndax ñun tey on voulait Ousmane Sonko hors de ses ñoom ñu dimbali ñu ba tey ñoom seen deal bi ba léegi de hors des mêmes risques ñu tëj Ousmane ko ci këram mu may ko temps mu liggéey mu may ko temps mu préparé wu mu may ko temps mu entraîné wu mu may ko temps wér yaram ngi gën a yokku ndax mes amis préparez-vous de combat bu méttee méttee moo nekk suñu kanam on va monter des échelles c'est le dernier tournoi. c'est le dernier tournoi. C'est le dernier tournoi. On est au dernier tournard. On a gagné ce combat déjà. Ce combat est déjà gagné. En anglais, we victorious already célébration rek mo ci dess waaye laataa ngay célébrer préparation célébration yoy fa lañu tollu peuple sénégalais di ngeen wagas nak seeni ay loxo yére dinañu def ni ndax xam nga booy rendi xar deret bi day tassaru donc il faut nga wagas sa yéré fa lañu tollu yeew nañu bandi bañu deuguer et maintenant on les connaît il suffit tout simplement de les éliminer on les connaît ñun xam nañu len de té ñi wara dégg dégg honorable ci ci ci ci assemblée baré tuñu dé réseaux sociaux yi kan moo ko accaparé ñoom ci seen bop bu ñuy wax légui dañuy tiit billahi wallahi wa sagalen ma wa d'accord comploteur là, wa sagalen ma wa xas len ma dañoo tiit parce que la population sénégalaise s'est révolutionnée la population s'est révoltée fi mu ñun on connaît nos bandits xam nañu suñu ay bandits léegi nax nañu leen ba ñu daanu ci biir piège on les a fait tomber dans la piège piège bi ñu tabaxal ñoom piège bi nga xam ne moom la ñu tabax ñoom ñoo daanu ci biir moo toujours Ousmane Sonko saa bu leen daan wax ngeen dégg ñu ne leen am na ci aaya alxuraan boo xam ne yàlla suñu borom moo ko wàcceel ne leen toujours les comploteurs qui complote xam ne yalla ngi di gis te yalla il est le tout connaisseur Yalla mo xam lepp yalla xam na lepp gis na lepp gis nga ba ci groupe yi ay comploteur xam ngeen lool ba ci patriote pas patriote ndax patriote du complote mais ba ci Communicateur, il y des comploteurs fan on les a wallahi wallahi préparez len rek yagul dara déjà ñom amnañu mort politique enterrement politique rek lañuy xaar des jeunes comme Abba Abba li la deseeti ci assemblée bi bariwul légui mu jeex inshallah rabbi président bu bess légui mu ñew assemblée bi gars dissoudre ko en 6 mois donc dis-toi que septembre dewen liñu ñu doon xeex yëpp ba xeex article L quatre-vingt-sept du woon pour population bi pour ñoom bu ñu ñàkk honorable yooyu la mais doo leen déggati honorable fan ngeen di déggee honorable yéen foo leen rombati population bi ñu ne leen cim foo leen romb population sénégalaise ñu ne leen cim tuubi xaj xaatuf Abba Mbaye maa ngi fàttale fàttaliku bi ko kenn ci patriote yi kenn ci liveur yi axénéton daf ko daan bind di ko kas di ko xeex ak moom di ko def ay yu garaaw ak bambay di joy rek ñun yoy yëpp fekkee nañ ko fi fi lepp fekkee nañ ko xam nañu lepp vous savez on connaissait mais li ñu doon bañ moy vraiment buñu wéddi président Ousmane Sonko ñu top rek go along with the plan mbir mi plan la you have to go along with the plan parce que bo jékki-jékkee rek commencé fusiller do ma sa xam secret sa non je ma sa xam sa préparé. la donc du coup ñun dañu daan top, di déglu président Ousmane Sonko di top di déglu di top di déglu di top top top top indi fi, fi ñu yegg te place le moment où tu as découvert les vrais traîtres et tu as compris ce que c'est le système. demee référendum mu ne on vote non. déglu leen parce que la conséquence mooy que une démocratie mooy manque régulation. et loolu moo ñu indi lii yëpp. déglu dans une démocratie on n'a pas une carte à jouer dans une démocratie on a un rôle à jouer acteur politique bu nekk da nga am cër ci sa kanamu askan sa kanamu sa ay bokk sa kanamu sa ay militants sa kanamu ay rakk. Et il est important que acteur Bounek soit à la hauteur du moment, à la hauteur des enjeux du moment. C'est pour ça que Taro Sénégal un dialogue et on assume d'être allé au dialogue. Et on votera tous les textes qui sont issus du dialogue. Parce que nous, nous nous Ok, on est des dealers. Traite. Ok, on est des traites. Mais on est suffisamment expérimenté pour savoir que le temps est le meilleur des juges ils savent que la population est contre ce qu'ils sont en train de faire ils le savent C'est le peuple sénégalais C'est le peuple souverain C'est le peuple qui a compris le système C'est le peuple qui a compris les enjeux C'est le peuple qui connaît que yow Abba li ngay yaa ngi positionné wu bis bu Khalifa Ababacar salla jële réew mi nga dégg monsieur le ministre waaye billahi monsieur le ministre ci xabur nga koy déggee de doo ko dégg tànk yaa ngi aba <laughs> abba <laughs> abba dil ba toj na de billahi wallahi tallahi lazim dinaa la ko fattali xam ngeen ma man man sama làmmiñ bii maa ko moom 2024 dinaa leen woo par non yéen ñëpp ma fàttali leen ne leen waxoon naa leen ne seen deal bi toj na Abba 2024 tu seras chômeur 2024 yow ak Bart yëpp da ngeen di chômer billaay wallaay tallaay la si Bart moom dealer la ndax xam naa ne dina sàcc ay milliards yu bari balaa 2024 di jot ci ci ci caisse d'avance bi ci Dakar ci budget bii dina ci toj àddina ndax moom laata élection yi di jot sax mu ngi waxtaan fii ak benn nit bu ma xam na ko weddi rek xam nga lu nekk rek man damay am preuve ne leen ko Ousmane ngara nee na am na soxna su ne Amérique moom xam na li may wax soxna si juif la yéen a ngi doon bindante ay message te am naa ci message yi lu bari ndax xam naa soxna si lu bari dama ko xam xam laa wax de xam xam ko bu baax ba toog ak moom ci taablam ba mu may laaj ay question ne ma Bart daf ma ne nako lijeentil 1 million de dollars ba mu nek député ak jam ak salam après mu delloo ma xaalis bi après li ci nek yëpp dinañ ko régler mu ne ma ndax ma def ko wala buma ko def ma ko soxna si mu ne ma waw ma ko man liggéeyuma ci deal waxuma ci deal man kima ma gëm Ousmane Sonko la tuddu te du deal donc man pour lo wara jox Bart ak lo warta jox Bart vraiment sama yon nekku ci soxna si dem na sax Bart ba laaj man ndax am nga soxna ma ne ko loolu man sama yoon new ci duma dugg ci ay vie privée jàmbur soxna si laaj na ma sax ba laaj ma ndax Bart il est ba léegi ma ne ko man loolu sama yoon new ci du ma ci dugg mais loolu pour junj la rek pour wax leen ne yàgg na ñoo xam ne ay dealer ngeen du ma dugg ci sa vie privée je vais m'arrêter là mais dama bëgg ngeen xam ne yàgg na ñoo xam ne vous faites partir d'un système corrompu yag na xamné yena a ngi deal yag na xamné ci système bobu ngeen mais je vais vous assurer et vous garantir que you wrong once again Madame, vous vous êtes trompé encore une fois et les Sénégalais feront face on fera face hein <laughs> non non on a combattu la justice on a combattu la justice et on a eu raison et on a eu victoire. Parallèlement, votre voté seeni ay loi ngeen xool lan moo ciy top. waxoon naa ko je vous l'avais dit hier on a tous vos listes Quand yi dañoo xarañ jox nañ ma liste député yëpp ba pare C'est liste yéen ñëpp jox nañ ma ko def li di def nous on va continuer à résister le système le système qu'expliquait Sonko Sonko expliquait le système Il expliquait gardien yi système le chauffeur système il nous l'avait expliqué on connaît le système et maintenant on a compris le système système le système le système corrompu le système pourri le système le système corrompu le ba léegi yéen a ngi am yaakaar ne dingeen ngeen tous ces millions de sénégalais di ngeen dem assemblée nationale jallale sen tapalé, sénégalais yi dinañu nangu seeni ay tapalé. sénégalais yi duñu nangu seeni ay tapalé. loolu du mas xew sénégalais yi duñu nangu tapalé. jamais jamais de la vie les sénégalais ne vont pas accepter vos deals on va refuser et on va résister le peuple contre le système Voici, mes frères, ce qui se passe au Sénégal. C'est le peuple sénégalais contre le système. Voici ce qui se passe. au Sénégal c'est le peuple contre le système Nous dem déglu honorable Abbas Fall maa monsieur le ministre je un jour Ousmane Sonko ne sera jamais président de la République du Sénégal da nga fàtte ci incha parce que yow avez nelaw yow sax yàlla la boo sax donc mënoo toog wax ne président Ousmane Sonko ne sera jamais président de la République du Sénégal bolé ci inshallah nga taxaw millions de cartes pour fal le président Macky Sall Vous wo ci inshallah mo taxit désormais c'est un futur ex-président de la République nous ñu yalla c'est extrêmement important j'ai envie de dire tout ça pour ça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 nous ci ay association nous ci ay mouvement ils ont le droit d'aspirer à gérer ce pays je suis foncièrement contre parce que je di ko tout ça pour ça l'heure et l'heure là vous vous parce que le problème n'est pas réglé même pour les candidats qui ont potentiellement ce parrainage-là les arrange Macky Sall soppeekuwul la des en 2019 Pourtant, c'est un futur ex-président de la République loolu lay defaat président Macky Sall d'accord loolu lay defaat loolu lay defaat pour ki nga Mon mieux, mon yoo la mot ne remplacé. pas remplacé. remplacer te de sax defe problème parce que sen siège ba chez yangay naw naaw a ngay dóorante yéen ngay saagante ki nan diw laa àndal kële nan diw laa andal yéen sax déjà am ngeen problème donc donc donc ce parrainage doit disparaître de la constitution bien bi il y a d'autres éléments yu même ci loi bi yoo c'est des éléments handicapants on n'aura pas cinq à six candidats pour nous continuer ni lii bu ko voté nous continuer on n'aura pas cinq à six candidats c'est pourquoi je demande à tous les candidats nous faire contre le parrainage parce qu'il est exclusif du yoon dindichi à dindi ci attelage bi un élément bon, xam day handicaper déjà les gens mais pourquoi nous réduire le délai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 mes, mes frères sont confidents Sénégal commence na taw Sénégal tambalé na taw inondation tambalé. tambali. Jafé, Jafé, fait, tambali. les comploteurs eux ils sont à l'Assemblée nationale complotés contre un opposant féroce un opposant verdict un opposant boo xam ne kenn mënu koo baare yoon seulement ñi xamul dinaa leen dégluloo benn cas la cas pour ngeen xam yéen li xew Sénégal yéen yéen dafa mel ni da ngeen dëkk biir Sénégal ba léegi yéen est-ce que mas ngeen doxantu ci seen biir gox yi xool amour bi ñu am pour Sonko est-ce que mas ngeen jël seen temps pour xool loolu dama leen ñaan yéen ci seen bopp député assemblée nationale yi taf leen photo photo Sonko seen buntu kër ngeen xool genre d'amour bi damay bañ gaa yi commencé ñëw ziyaare seen kër yi commencé ñëw di di di di di ñëw aji ci seen biir kër yi naan la ñun dañoo ñëw ziyaare ku sell ki photo bi rek dañ koy ziyaare yéen xam ngeen li xew xam ngeen doole bi yàlla may waa ji xam ngeen waa ji un Ousmane Tounkara qui est indépendant self-made may doxantu di sol ci setu waaj yi mel ni teyuma ko mel ni j'ai perdu la tête yéen xam ngeen li xew ñun li ñu nekkee tey ñu ko de vous n'avez rien compris yéen mbaa xam ngeen liggéey jiir waa ji waa ji kii nga xam ne bu sa jabar waxee lu neexul ci moom sax ngeen xuloo sa yaay bu la waxee lu la neexul sax ci waa ji ngeen xaw a laale waa ji kii ngeen bëgg a faagaagal kii nii waa ji luy la <laughs> ba daa ngeen ko eh, ya Allah rien compris sëñ bi juróom benni a ngi nii may nangamtaan di Dakar seen ndey juróom benni at depuis deux mille dix huit may doxaan seen ndey di doxaan seen ndey ba seen ndey yëpp di doxot ma Dakar seen ndey ba heure ngeen ne waa jii ngeen di comploter pour du bokk kii kii ngeen di comploter kii yéen vous n'avez rien compris yéen comprendre leen dara yéen xamu leen sax li géej gi riir yéen sénégalais yi gëmuñu seen ndey you don't fucking understand gëmuñu leen we know the fucking system depuis 1960 système boobu ñun conquérir nañ ko ba pare nous on est dans l'éveil des consciences sénégalais yeewu nañu ndeyam saaga yi ma saaga fii yëpp teyuma ko sax xam ngeen loolu est-ce que xam ngeen ñaata yoon la ma nit di woo di ma ne waa eh Tounkara dimbali ñu rek bàyyil saaga teyuma ko dama bëgg waa ji mbëggeel ndeyam boo xam ne man teyuma ko man teyuma teyuma li ma ko bëgg li kii teyuma loolu boko ko nit sax mu wax sama domi yi sax bo len ko laajoon ñu wax ñom sax buñ ma bëgge ñaan ci biir kër gi buñu bëgge lek sax dañuy ne ah vive Ousmane Sonko après nga dégg pap est-ce que man na jël dara ci frigo bi lek man na lekkal ndey frigo bi yépp ku ne am ba Sonko sax du naan ndox sama biir kër yéen ngeen yaakar ne yéen ñu tuuti ñi te ñu bari ci ngeen ay tuuti cuccu yéen réglé wu leen dara seen biir kër yi sax contrôlé wu leen ko yéen ngeen ne kii ngeen di xañ pour mu doon président de la république xanaa yéen bëggu leen dundati ci biir Sénégal ndeyam. ban président moo mën a jël nguuru Sénégal gi doxal ko yéen Sénégal kuñ ko tegoon ci sa loxo sax ak moment yu jaxasoo yi naka ngay gouverner comment tu vas gouverner ce pays how the fuck you gonna that country Lance Camara il m'appelle un comédien comédien sa datoon day comédien comédien ça baille. man comédien là. moi suis un comédien comédien là, man ndaw comédien bu tekki damay Dakar sa day nee naa leen li may def tayuma ko damay gat sa gat sa yéen wér ngeen yen est-ce que seen xel normal na yéen ku leen yee cinq du matin ne ah votre complot a réussi contre le président Ousmane Sonko yéen gëm ngeen loolu yéen naka ngeen fas yéene gouverner senegal senegal naka ngeen koy gouverner how the fuck you gonna run a country that nobody likes you réew moo xam ne kenn bëggu la ci ndeyam benn nit ki lañu bëgg imaginel sëy ak jigéen bu la nobul nga tëdd ci kaw lal bi mu dem daqaar ndeyam ci biti mu dem xale bu góor tëddee ko ci biti mu ñëw tëdd ak yow ci kaw lal bi nga koy laal mu a la puus ma imagine loolu yéen looloo leen dal da ngeen tëdd tëju ci si biir nekk ak seen jabar yi seen jabar yi bu guddi jotee ñu dem xale yu góor yi laal leen ci biti ba fajar ñu ñëw tëdd seen wet a ah ngay làmb mu naan la non non non renduma non non non j'ai pas envie ne me touche looloo leen dal yéen yéen da ngeen feebar you sick yéen wér ngeen you fuck you seen bopp yi mi ngi dox yéen ku leen yee ne leen waaw yéen Khalifa Sall mii Khalifa Sall anti charismatique moom dafa mel ni charisme dafa jaar ni tuun bi xotteekoo na le yéen ku leen yee ne leen boo Sonko yàlla dina leen dimbali ngeen nekk ay président di ngeen gëm loolu ndeyam yéen ku leen yee ne leen waaw Ousmane Sonko vraiment dañ koy éliminer Macky Sall Macky Sall dafa contrôler saram ndeyam Macky Sall mënul contrôler sax cuccu bi nekk ci tubéem il ne contrôle rien Macky contrôlé wul dara ci senegal teyuma ko de teyuma ko lii may def nii man teyuma ko de pour ku yaakaar ne Tunkara day jóg nii day saaga waa non non ko mbëggeel bi moo ma dépassé. kilifa yi xam nga kilifa man na tëju ci bir neeg ak setam di saaga ndey ñuy saaga ndeyam moom xam nga kilifa yu bari dañuy def loolu te duñ ko wax ci biti moo dal Ousmane Sonko ñun amour biñ ko bëgg ndayam mo ñu dépasser ça nous dépasse et on sait que c'est la personne qu'il nous faut pour changer ce pays donc bu dé quelques saaga yi may saaga garaawul parce que Sénégal moy baax ba faw te Sénégal boobu man xeexuma pour mu baaxal ma man dama xeex pour mu baaxal toute une génération de Sénégalais des jeunes des jeunes Sénégalais qui se battent pour ce pays jeunes yi dee ci àll bi suñu jeunes yi dee ci àll bi di dee ci géej gi sama doom yi ñi ngeen ci suñu biir réew doomu xaraam yi demu leen assemblée nationale passé ay loi wax ci ñiy rey doomu sénégalais yi ngeen mettil indi ay ay déedéet yéen ñëpp yéen a ngi comploter pour voilà sa lii bu jëlee mu def la lii mu def la lale xool leen seen différence ak ñun dégguloo leen man ma ne leen bëgguma ndeyam dara man ñun Sénégal bu changé rek lañu ñu bëgg bëgguñu ndeyam dara ñun kaaruñu dara ci Sénégal na Sénégal changé rek pour le bon de tous les Sénégalais yéen ngeen di comploter vous êtes toujours dans des complots di comploter population sénégalaise bi di bëgg sàcc réew mi di sàcc alalu réew mi yaakaar ne yéen dangeen ngeen di xeex waaw bu ñu jëlee réew mi ah <laughs> ñu nga dégg ministre Abba waa këram yëpp tëb nag waa Abba nekk na ministre ah tekki nañu loolu doo leen ko fokkin déggati ci Sénégal das daan loolu seetaan nañ ko ci Macky ñun. that's done we gonna sell you our fucking lives man dañ leen di jaay nday suñu yépp lan rek ngeen di nekkee président Sénégal bu dee Sénégal dix mille personnes ñoo fa des parce que vous allez devoir tuer les dix huit millions neuf cent quatre vingt dix mille sénégalais parce que xam naa ne fi mu toll nii Sénégal yegg na dix huit millions donc vous devrez di ngeen yegg foo xam ne vous devrez assassiner dix dix sept millions neuf cent quatre vingt dix mille sénégalais ngeen di rey balaa ngeen di yegg ndey ci nguur loolu nu muy nekkee c'est impossible donc seen yaakaar tasati na dem leen comploter leen dañ leen di gën a xàmmee rek gañ leen ràññee waaye li xewoon dootul xewate de Sénégal la amoon dootul amate de dinañu daqaar seen job bu ndey ba ngeen jommi ñun nag yéen ci biir assemblée bii ak biir dëkk bii dëkk bi dina xat ci yéen avertir nañ leen on vous a averti xam nga avertir nañ leen dànkaafu leen nangu leen déglu dinañu defante ak yéen ba mu saf sap Abba Mbaye moom garaawul on le verra moom yàggul mais yéen ñi ci des yéen ñi amul fit sax di laqatu yéen même boo leen loon wax ci kaw xanaa xamu leen ne ñun lépp lu fanaan ci assemblée nationale bi ci suñu loxo bii lay fanaan xamu leen loolu on fera face lay ñu ngi leen di xaar au tournant yaakaar ngeen ne sen complot bi réussir ngeen ko amul problème on vous attend man malen leen ne fel ngeen sen complot yéen daanu ngeen sen complot am yenen député nak comme ni ma leen koy fatelé am yenen ci sen biir yéen quelques députés yo xam ne a ngi dil ak Aly Ngouille député wala ñaar ci biir yewi Askan bi du di di dil de ndax gis na na àndagu leen ak mais ngi waxtaan ak mom te xam nañu len ba pare ndax ali Ngouille Ndiaye ya yo nee na momit coalition lay defar non pare ngeen ci Sénégal you dan you are leading that country that we can tell you Senegal ki koy jiite rek ko xam ne mais je vous promets que du don yen du don ku bok ci système ndax li tax sax may wax Ousmane Sonko di wax ñaar di am xel ñaar parce que xam nga yalla moo yor bakkan moo yor wér gu yaram lépp looy wax ci àdduna rek da ngay ne incha allah comme ni ko suñu frère Abbas Fall waxe mais tànk que sonk moom mi ngi dund di wér moom mooy président Sénégal mais yàlla moo yor ay fanu doomu aadama mën naa man mii di ak yéen mën naa wax tey te du ma fekkee ëllëg donc incha allahu rabbi tant que mi ngi dund moom mooy cinquième président ndax loolu cinquième président bu Sénégal jeune boobu moo koy décide gis nga Ousmane Sonko donte. Momo mo koy nek mom bu newon beuguma sax mom bu demone ba tok ne sénégalais eh ah man de tay sama yaram neexul beuguma nek président waye Adja Aram jeen wotal len ko Adja Aram jeen moy don président yeen xamul len ne Ousmane Sonko bu tanne xar sax ci Sénégal xar bi moy don président Ousmane Sonko dama len di jox ben exemple exemple la len di jox exemple ndax dama bëgg ngeen rêver rek gis na Ousmane Sonko bu lettre rek lettre waxuma la wax wax mara day Ousmane Sonko bu bindoon trois mots ne vote diw sama diggante ak yàlla kooku mooy gagné au premier tour à quatre-vingt pour cent exemple rek laa la jox yéen vous êtes mort politiquement you done finish xanaa Macky Sall lu muy def day baare réew mi yëpp ne kenn du wate you you done man you stupid fucks yéen xamu leen loolu you you done you been so done yéen yéen c'est grave am dara nothing nada how you not understand nee nañ la doon never fucking bite the hand that feeds you xam nga proverbe bi lu tax mu wax la loolu yow loxo bi lay jox nga lekk boo ko màttee wala nga dagg ko nooy lekkaate kooku moo lay dundal ndeyam yow yéen Ousmane Sonko moo tax ngeen exister politiquement bu duloon Ousmane Sonko Barthélemy Dias du nekk maire du nekk député Dakar moom xam na loolu bu duloon Ousmane Sonko yow Abba Mbaye looy am yéen sans Ousmane fan ngeen jëm bu du loon Ousmane Sonko suñu député diaspora suñu yaay bu suñu xarit maam Diarra Fam fu muy falu dafa mën a gañe Pikine dafa mën a gañe dara bu duloon Ousmane Sonko ay dara fan lay gañe wala keneen ak keneen samay xarit lañu nag sànniwuma leen xeer bu du duloon Ousmane Sonko kan ci yéen moo ñemee taxaw am fit ne man am naa doole je pèse lourd mën naa gañe sama gox mënuloo koo gañe te loolu mooy dëgg Ousmane Sonko daf leen jaay ngor ngeen jaay ko jaam te billahi di ngeen ko regretté bi ngeen ne Tunkara mi ndeke bari na wax waaye am na xam-xama ah. man defe naa da ngeen di xaru lii ngeen di def suicide politique la j'espère que Macky Sall jox na kenn ku nekk un milliard ci yéen pour ngeen mën a am retraite ci jàmm parce que un milliard sax bareetul léegi ci àdduna bi ndax lépp cher j'espère que Macky Sall vous a donné chacun un milliard de francs CFA pour ngeen mën a retraité ci jàmm parce que miliar milliard manou la sax jëndal kër Amérique par exemple ñun fi ñu dëkk lo jënd kër 1 milliard non donc Macky Sall pour man xana jox na leen milliard 1 milliard pour ngeen mëna jënd lo xamné vraiment man ngeen ko dundé milliards c'est un peu moins de deux millions de dollars j'espère que Macky Sall jox na leen kenn ku ne un milliard comme ça boo leen xaroo politiquement kenn ku nekk ci yéen dem jëndi kër fenn ci àll ba nga créer fa ferme ngay am tuuti meew di dem rëbbi ci àll bi di dund ndax un milliard boobu du la du la yóbbu plus de cinq ans wala dix ans période ci dund normal j'espère que vous avez ku un milliard parce que vous êtes mort politiquement par exemple, Abba Mbaye xale bu ndaw nga sa avenir politique xale tu avais un petit avenir kana budul dara doo xaru it's suicide man De nga jënd ticket loterie bu baaxul my friend Donc, gagné you gonna fucking lose so bad Yo, sa face, dafa mënta daw sa face, bu duggee ci course bi du jël bu dee juróom fukki fas la yow sa fas bi quarante neuf et demi yéem lay jël cam idi moom amul ku ko waxal assemblée nationale parce que moom amul sax député faaf Idrissa Seck kooku nee na moom waat na ci yàlla ne moom it mën naa gañe président Sénégal Khalifa Sall ñi mu fal yëpp tappalee tax mu fal leen doole Ousmane Sonko la pesé mu ñëw def boppam xaritam jege ko parce que pour léegi lu mu def rek ndeysaan Sonko du ko ne déedéet mu dil dil dil ci kawam ba am député yi mu am nii Khalifa Sall moo leen gën a teyaatoo ne du dem fen député yi mu am nii dina ko yóbbu de ba deux mille vingt quatre incha allahu rabbi ñu daanu ñoom ñëpp mu dee il est mort politiquement xalifa dee bu ñaaw lay dee ils ont fini Bart xale bu ndaw moom ngaa yàgg naa nekk gangster moom bu mbir bi jaxasoo mën naa ñëw Amérique jaay drogue moom amul problème ndax gangster c'est fini pour vous you done cette population sénégalaise éveillée, cette population mature, cette population déterminée, vous laissera jouer des complots sur nos têtes jamais. J'espère que chacun de vous a reçu au moins 1 à 2 milliards pour nous donner après lui. parce que soit les retraites politiques, politique les retraites retraite politique you done Are you down? Yann Koulen hier, 3 heures du matin. Non, non, sax non 3 heures du matin day xaw a teel de

Sénégal rek mo am lool té Pakistan sax il n'est pas condamné le dañ ko Japon bëgg juger Sénégal rek mo am kuñu japp ñom condamné def y y a ngi assemblée nationale di jouer seeni ay jeux sénégalais ñu ngi leen di on vous regarde avec nos yeux et on vous écoute ndeké du pour rien musu pour libérer les détenus politiques parce que pour rien, Macky Sall japp na 700 personnes ci kasso bi. loolu day wàññi doole sénégalais waaye bi leen di ñefalewaat la mois de juin passé sept cent personnes yooyu am nañu ci nekkoon ci kaso bi ba pare waaye bii yoon c'est le mortel combat gatsa gatsa on vous attend sur les tournants man bokkuma ci ñiy toog sax di yàq sama kàddu Ousmane Sonko day bokk Ousmane Sonko mooy ndeyam Sénégal kooku kan mooy wax day bokk c'est Ousmane Sonko qui est le Sénégal mooy Sénégal Ousmane Sonko tay bu nee c'est jour national de poupe ñeppay dugg ci bir toilette même bu ñu saful day bu nee c'est jour national de pisser tout le monde va pisser s'il dit jour national de boire ñeppay nan s'il dit jour national de dormir ñeppay dormir jour national de taper les casseroles ñepp dor nday ay casseroles ma len wax li loolu jàngalu len dara cela ne vous apprend rien bu wotalen yeen fo len si Ousmane Sonko dit allez attraper vous êtes fini yéen xam ngeen Ousmane Sonko bis bu ŋaaŋee ne indil leen ma Macky Sall Macky keroog doo fanaan day sa kër cee yu daan Ousmane Sonko bu dawalee welo ñu dawal bu entraîné ñu entraîné bu jàngee alxuraan sax même ñi jàngul alxuraan ubbi alxuraan jàng même seen saagakat yi bu jàngee alxuraan ñu ubbi alxuraan kooku ngeen ne yéen da ngeen di dem yaa yoo comploté entre vous les vauriens que personne n'aime imaginez xam nga yenn seen complot bi ni mu mel dafa mel ni ñu am Miss senegal wala xale bu jigéen bu rafet ci koñ bi xale bu jigéen bi benn xale bu góor rek la nopp te xale bu góor bi mu nopp moo ëpp doole ci dëkk bi te dafa am ay garde yu ponkal yuy wër ak moom léegi xam nga jëndee comploté contre moom les petits petits les plus petits de du quartier ñoo xam ne kenn ci yéen pesewul dara ngeen ne da ngeen di comploter dem nangu gel bi loolu na ngeen koy mëne imaginel rek imaginel wala ma jox leen sax tur ne leen Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo tey ci àdduna bi wala Lionel Messi parce que football ngeen bëgg kooku ci àdduna bi ak jabaram ah léegi kooku am jabaram ñu ne kan mooy comploté voilà ñu ne euh, euh, waay waay waay waay kan kan laa mën a tànn les plus grands vauriens Pawlish Mbaye euh, voilà Ouzin Keita voilà naa ci boole ma boole ci kan non du ma wax Abba no stress Abbas no stress doyee diwul ah bu ma ci boole Abba no stress voilà du ma ci boole Abba no stress mais Ouzin Keita ak Pawlish mbay ne dañu complot pour nangu gelu Ronaldo <laughs> mais qu'est-ce qui vous arrive vous êtes bêtes you are dumb mais c'est pas possible c'est pas possible Wow, bon ci Adamo <laughs> Adamo Akali, <laughs> Akali, ak voilà Amber Ouzin Keita Adamo Kali ak Pawlish Mbaye ñu ne dañuy comploter pour nangu gelu Ronaldo <laughs> non mais attends ah Khalifa Sall moom mooy kan la ci donc Khalifa Sall Adamo Adamo day saaga Khalifa du saaga donc Khalifa Sall moom kan non Khalifa Sall mooy Pawlish non moom du Pawlish Mbaye de nañ ko jox Ouzin Keita non non non du borom nekkul borom ñaari tur déedéet déedéet voilà non non <laughs> Idi Idi mooy Pawlish Mbaye Idi mooy Pawlish Mbaye léegi Khalifa moom <laughs> moom Ahmed Cissé la Ahmed <laughs> démb démb yeew sénégalais yi ñoo ñu yàpp quoi démb dafa yeewu mu am ku def affiche mu bind mu ne Ahmed Cissé candidat président ya bare ko xanaa moom kon bu boobaa du dem euh, fële euh, du du campagne Kaolack ndax moom ba mu demee Kaolack dañ ko faa ñuus ba simmi ko taatu de xanaa bay de candidat gox yëpp dañ lay may nga mën a campagne ah Ahmed Cissé wax naa leen ko nee naa leen papaam jàngalekat alxuraan la woon Gàmbi du ma ci yegg moom tey du débat am du jour moom xam na li may wax am na rakk Gàmbi nag <coughs> waaye nañu bàyyi noonu. imagine leen ñu ne leen Kaliphone Sall Adamo Pawlish mbay ah ak euh, Ouzin Keita ak Ahmed Cissé juróom yooyu ñooy comploter pour nangu gelu Ronaldo. Kaliphone yor jaasem taxaw ci buntu koñ waaye ku fi yéegee rek ku fi yéeg gars yi ne pataa mu yéeg ci étage Adamo moom bu Wally Seck ñëwee rek mu fàtte moom nekk leneen am na ci dëkk ndax waalee koy saagaloo Ouzin Keita moom lañu xamoon xam nañ ko temps temps moom xaw na koo biiral moom ci góor Pawlish Mbaye moom dafa doyati moom nee na dof-dof loo tax mu am ay milliards patriote yi nag Pawlish xuloowul ak yéen de tur yi ma fi tudd Pawlish nee na juboo naa ak yéen ngeen fexe bu leen désabonné ci kontam parce que moom ci dof-dof lu lay jëlee xaalis kan ma fiy konteel waaw ak maître El Hadj Diouf tamit dégg naa ko démb muy xatraayu chee eh waaye El Hadj Diouf nee la léegi ana El sax moom it am na ku ma fi yónnee woon mbirum El Hadj Diouf de hee eh, El la de def leen attention hee eh, ndaw sama <laughs> eh, oh El Hadj waaw voilà voilà El Hadj Diouf candidat la déglu leen bi. wax ci kaw du ma ut lu ko neex ndax ñoo dend déedéet du ma ut lu ko neex ndax sama patron la sama teraay bàmmeel laay jiital waxoon naa leen ko café turam waxaat leen ko ndax xaw ma li may wax dina eggam di dama bëgg ñun sénégalais ñu xàmmee ne ñaari mbubb la El Hadj Diouf yor El Hadj Moustapha laaj réew mi di ku sell di ku set di ku nangoo liggéey di ku am xam-xam di ku jàng. nekkul ak maître El Hadj permettre vraiment je suis j'ai été vraiment convaincu parce que xam nga nit tamit il faut avoir les couilles et El Diouf il a beaucoup de couilles parce que au moins man na taxaw jàkkaarloog Sénégalais gi doyadi gi mu doyadi yëpp mu ne mom da bëgg candidat xam nga Sénégal nak man je vais vous dire comédie kenn du ko ak lu sérieux waye tay man li xew Sénégal jappé ma ko lu comédien lool la leen bëgg wax rek li xew Sénégal tay man comédie la ko jappé parce que quand un bande de vauriens comme ni ma leen ko waxé paulish Mbaye Ouzin Keïta adamoo Ahmed Cissé Kaliphone Sall ñu ne ñoom dañuy comploter pour nangu gelu Ronaldo problème bi mooy ñoom ci biir complot bi la ñuy ñuusante te ñu jóge ci complot ba ñoom fa la ñuy gaañante taa yi dagg ngeen Adamo ak non Kaliphone ak kii ñu ngi daggante ay ndey moom ak Ahmed Cissé imagine ngeen imagine Adamo California, sal Ahmed Cissé Paulish Mbaye Ouzin Keita ñu ne la complot ñu ne ñoom lan la ñuy def ñu ne ñoom dañuy Ronaldo Cristiano Ronaldo la leen wax Cristiano Ronaldo ñoom naka la ñuy def d'abord pour yegg ci gel premier bu Problem problème bu njëkk nan lañuy def ba wéet ak mom ba wax seen soxla ñom nan lañuy def ci seen biir ñom ba ba xam li ñu war comploter lan la mooy problème d'abord imagine mais le Sénégal n'est pas un pays sérieux parce que parfois da ngay déglu li nit ñi di wax yow ngay est-ce que vraiment sérieusement nous li ñuy c'est sérieux te looloo ñu dal au Sénégal on ne discute jamais du sérieux dañu dem ba doyadil suñu bopp parce que ñun savons qu'il xel a dof yooyu qui di dil représenté wuñu dara il une petite minorité au Sénégal donc nous avons ñu dilee ba pare seen deal bobu naka lañuy def ba effectuer ko xam nga deal du problème mi ngi melni man mi rek tay ma dem chasse Mareille hippopotame rey bi nekkul problème bi léegi mais hippopotame boobu man naka laa koy yenoo yóbbu ko xanaa dama koy daggate par morceau di yóbbu te bu ma daggee benn morso foo xam ne bukki yi bari nañ fa xanaa balaa maa ñëwaat bukki lekk li ci des mais dil bi c'est un c'est peine perdue moo tax ku sell ki est que dégg ngeen mu yëy ci yàbbi ci yëyu ci yàbbiwu ci parce que moom waxoon na leen ko te wax na ko France 24. S'ils pensent qu'ils vont comploter contre Ousmane Sonko, Ousmane Sonko ne sera pas candidat. Soit il n'y aura pas d'élection au Sénégal, ou alors nous ci condition conditions pour waar bu catastrophique bu chaotique te bu jàllee ba un yow naka ngay gouverner yow boo demee ba ngeen ba indi ay naka ngay gouverner ci xalé yu li ñu Dakar 5 ans loo kii ñu bummi loo buum ñu bummi kono boo indi ñu crevé ndayam foo yëngal ci dëkk bi ñu taal yow naka ngay gouverner tu vas emprisonner tout le Sénégal dara doo leen ko am senegal dara tous doo leen ko am yéen xam ngeen ay éliminer CREI woo ay nangam woo ay mag Macky Sall wala indi woon na yi léegi dindi na CREI yi nee na day indi agence bi lu leen neex def leen bu leen neexee na Macky daggate ndeyam Macky saram ndeyam tekkiwu ko baayam dunguru la woon moom doomu jaam la lu mu fi indi ci senegal du jàll mag Macky ñun wax nañ la ko ñun ay doomu góor ay doomu géer pire ay sëtu buur vrai buur ñoo taxaw sa kanam baare la yoon doomu xatkaana bu Dakar sa ndey bi yow lan nga mën a yëngal ci senegal dara doo ko yëngal li mu gën a neex loo koy wax ci noppam mu dégg ko mooy sàllangaari buur géde Macky le mot qu'il préfère que tous les mots du monde mooy nga ne ko sàllangaari buur géde parce que xam na ne du buur Macky fan la nekkee buur Macky fan la nekkee buur buuru fan la ñun ñu ngi leen di xaar on xam nga yàkkamti yàqule koo xam ne saa boo leen xeexee nga ñuus ko kooku doo ko yàkkamti di ko dóor kurpeñ da ngeen yaakaar ne am ngeen xam-xam da ngeen yaakaar ne am ngeen man-man ñu ngi leen di xaar on vous attend au tournant ñu ngi leen di xaar Fini ñu leen di soriwul autour là, ci quoi ba lañ leen di xaar vous ne représentez rien du tout yéen benn minorité minable ngeen mécontent jaloux te Ousmane Sonko Boko ko il est humble il n'est jamais jaloux de vous musul xëccoo ak yéen dara loo lal laal mu ne leen jël a ko jiitaloon parce que xam ngeen ne manou leen am dara sans mom. may nuyu de passage notre frère Détchefal. Parce que jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui reste droit dans ses portes... ko personnellement Je di Je di de passage tu es brave reste brave et reste constant may nuyu suñu yaay Aïda la lionne du Bawol Top ci ngor xam ngor Macky Sall ji ko ay milliards mu bañ Macky Sall bëgg ko jënd wax ko lu ne mu bañ ñu ngi lay jaajëfal Maimouna Bousso ñu ngi lay jaajeufal yeen ñi gore continuer ba légui nek yewi askan bi yeen ñepp nak ku lim ñu ngi leen di jaajeufal continuer leen gore rek xalé yi dinañu and ak yeen gungé leen ba ngeen yegg fi ngeen jëm incha rabbi je vous le promets c'est une promesse et la promesse est une dette. Ces enfants vous accompagneront tant que vous restez fidèles. Je ne dis pas fidèle à Ousmane Sonko seulement, mais fidèle au Sénégal. Ndax fidèle au Sénégal, tu es fidèle à Ousmane Sonko et tu es fidèle au pays. ndax ñun loolu rek la laaj yal na ci li ngeen bëgg ak suñu tata Mimi Mimi Touré bravo parce que quand ça a été dur ak luñ ko mëna waxal taxaw di et elle fait partie des personnes qui ont vulgarisé le message au niveau international ñu ngi leen di jaajëfal Cheikh Tidiane Dieye vraiment macha allah ñu ngi leen di jaajëfal hein, votre position parce que euh, c'est pas facile waa ji moom Déthié Fall moom léegi euh, siège bi gars def ko barricade Déthié mënatul génn Déthié chaque jour que Dieu bu génnee ndeysaan fekk barricade yi ci bon ci buntu place am chaque jour président Déthié Fall ñu ngi koy jaajëfal chaque jour que Dieu fait Déthié Fall bu demee fekk Macky Sall barricade na li nga xam ne moom mooy euh, kiiwu PRP maanaam euh, kiyam euh, kiyam bi ndeysaan siège am siège u PRP chaque jour Macky Sall barricade parce que ñoñu dañu baña and ak mom dañu baña plier wu ils ont refusé de se plier ñun insha Allah rabbi sonko la gëm man nané man bok sonko la gëm té dina xex dina xex dina xex billahi dina xex ba geej gi fer Macky Sall gisagul dara ku yaakar ne wa pur absolument absolument wa pur yes we love them these are our brothers suñu sëriñ ak ay taalubeem nob bëgg nañu leen lool Macky dinañu xeex ak yow bu ñu paree la yow ba 2024 génnee la ndey réew mi ñi ci des ñi yaakaar ne mën komplote, comploter dinañu xeex ak aussi il faut le savoir on va se battre contre vous ñun dañuy xeex ak yéen dañuy xeex ak voilà ñu ne vendredi muy suba 23h nee nañu grand format de lima ma gisagum ci ay publicité nee nañu Ousmane Sonko mooy doon invité du grand format avec Pierre Edouard Faye voilà moom la gis voilà les muy bu baax beeg mu bañ a doon bu baax beeg on verra d'ici demain waaye buñ ko raté de Ousmane Sonko nee nañu mooy nék euh, invité grand format suba. onze heures ci guddi incha allahu rabbi ak Pierre Edouard ñu ngi xaar ndax xam naa ne dina intéressant lool incha allahu rabbi nañu continuer rek gars yi continuer maintien maintien maintien résistance résistance résistance maintien maintien rek fi mu ne seen taat tàng na jër sonn nañ de Macky sonn na de Macky est fatigué Macky jaaxle na jommi na ndax nga dem justice tek say deal nga dem assemblée nationale tek say deal ñu ngi leen di xaar amul problème on vous attend maintien rek la jeunesse maintien les patriotes maintien gatsa gatsa maintien rek résistance résistance résistance résistance fi mu ne tenir ils sont finis mënatu ñoo tenir ñun jàpp nañu Macky Sall yëngal ko depuis kañ depuis deux mille dix huit ñu ngi ci kawam depuis deux mille dix sept ñu ngi ci kaw Macky Sall mënatul tenir fi mu ne buy buy toog day jayaxu buy dox mënul mënul jubal ay tànkam ils ont vraiment des problème ay problèmes yu bari la ñu am suñu tool bi xamatuñu lu ñuy def xamatuñu fu ñuy teg seen tànk they confused they scared c'est amatuñu énergie on va libérer incha allahu tous les détenus politiques comme ni ma leen ko on va maintenir des marches chaque vendredi dans tous les coins du Sénégal chaque vendredi on va commencer les marches bu ñu xaar kenn ku bëgg a ñëw bokk na bokk xaaruñu autorisation xaaruñu dara chaque vendredi mën nañoo tëj ñun ñëpp ñu jeex nañ ñu tëj ñun ñëpp ñu jeex mais les sénégalais on va commencer à marché dans tous les coins du Sénégal est ouest nord sud voilà nañu commencer gars yi maa ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu